nauzu bi zaatillahi li zaatihi min zaati shaytaani rajim wa bi sifaatillahi li sifaatihi min sifaati shaytaani rajim wa bi afaalillahi li afaalihi min afaali shaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa bika ya aliyu ya azim bokki jullit yi ñu dellusiwaat ak yéen ci suñu beneen tomb ci seen émission shukran bi ñu leen di defal ci dakar midi point net tey nag suñu émission ñu ngi ko joyal ci al amnu min makrillah muy óolu pexem yàlla te yàlla wax ci alquran ne falaa yamanu makrallahi illa al qawmu al qaasiruun amul kenn koo xam ne dana wóolu pexem yàlla lu dul ne dafa nar a perte ku nar perte rek mooy wóolu pexem yàlla ndax fraction de seconde yàlla mën na ci màbb ji fi jaam parce que ku yàlla bàyyeeg sa bopp rek nga tarxiis te yàlla nañ ci yàlla musal moo tax yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu toll daan na ñaan ne ko yaa muqallibal qulubi sabbit qalbi ala diinika yow mi nga xam ne yow yàlla yaay wëlbati xol num la neexee ci gaawaay ak fum la soobe yàlla na nga wëlbati sama xol bi saxal ko ci diine ji ah segam nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñaanal boppam sax ci diine maasama ñun niti ordinair yi nga xam ne demaguñu fenn moo tax daanañu ko wax ne ko yaa rasulallah attaqaaf yow mi yàlla yónni xanaa danga ragal mu ne déedéet ragaluma ndax diggante wëlbatiku jaam bi ci diggante xelam ak xolam mu ngi nekk ci diggante ñaari baaraamta mu moo gën a gaaw ngelaw fuuf nit mën na liggéey fukki at ba dabu yàlla am yàlla ba fees ko dell waaye yàqule ko ci fraction de seconde bu gaaw mooy gis sa jëfi bopp ji nga def te yàlla nañ ci yàlla musal moo tax yàlla kenn du ko óolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn marax mu bàyyi ba ñëpp tëdd mu doxantu ci kaaba gi bi mu egsee mi ngi fekk naa Jibril mi ngi jafandu ci rido kaaba gi di jooy jooy yu metti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ne ko Jibril mu ne ko labbayka mu ne ko ndax da ngay ñëw fii te doo jaar ci man mu ne ko léeg-léeg mu ne ko sa jooy yu metti yi ngay jooy lan moo ko waral Seydina Jibril ne ko ñàkk óolu pexem yàlla bokk na ci li tax ma jafandu ci rido kaaba gi di jooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jafandu ca geneen wet ga ñu fanaan fa ko jooy ba noppi rek xool sa morom sëggaat jooyaat noonu lañ ko awantee ba fajar jot Seydina Jibril naaw jëm kaw yonent bi waññeeku dellu këram mais xam nga lu leen yàlla dabaatale ku óolu sama pexe rek da nga di gone iblis laanatullahi alayhi jaamu na yàlla ay at yu bari nangami junni siècle waaye gis nga ko ci fraction de seconde bu ndaw ci la perte mboolem lu mu defaloon sunu borom subhanahu wa taala te mbokk yi gis sa bopp ci li ngay defal yàlla baaxul euh, dafa am benn waaju baax joo xam ne yàlla daf ko natt woon tàggat ko ci boppam mu bëgg yàlla lool di ko jaamu guddeeg bëccëg bëccëg bi daf koy oor guddi gi mu fanaan la juróom-ñaar fukki at ci waaji li ci loolu la sax yàlla dogal na it amul xarit amul àndandoo amul jabar amul doom ber boppam ci àll ba rek def sufiyanke boppam juróom-ñaar fukki at yàlla dogal na bi muy faatu mu ngi faatu ci sujjóot la faatoo yàlla yebal malaayikatul kiraam yi ne dem leen jël ruuxu sama jàmbali ngeen yóbbul ma ko aljanna waaye ci gis gi nit di gis boppam ci lim defal yàlla mu ne lool rek moo mën a am yàlla ne ko loo ma defal ba ne looloo mën a am mu ne ko juróom-ñaar fukki at ma sax ko ci benn xeer di la jaamu aw jabar aw ma xarit aw ma àndandoo waxumaag góor waxumaag jigéen di or bëccëg bi dinaa fi la guddi yi yàlla loolu mënul nee ne noonu fokk damay dem aljanna yàlla ne ko kon taxaw leen ñu xisaab sa bëtu càmmoñ bi nu mu toll soo ma ko fayee bu ñu reglee ba noppi ñu jàll ca leneen ba keroog say cër di jeex loola la nga cay déggee mooy ku yàlla topp ci say jëf sa dara du baax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ko ci alquran ne waalamu anna allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi ay baynahu wa bayna aqlihi yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla wax na ko ci alquran ne na xam ne yàlla mooy wëlbati li nekk ci diggante xolu jaam bi ba mu nangoo topp yàlla waaye mooy wëlbati it li nekk ci diggante xolu jaam bi ba du mën a topp yàlla ndax nag yàlla kat ci coobareem huwa alladi latafa bi awliyaihi fa arifuuhu walaw latafa bi aadaihi ma jahiluuhu yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala ci ñeewanteem gu mu am te ñeewante ko ñu baax ñi ci lañu gisee leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mën ko dàkku di ko niitu ndax xol bu baaxul xol bu ràggul xol bu amul paan moom dong moo mën a capter leeraayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xol bu am feebar du mën a capter leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñi jamononte woon ak yonent bi ku mel ni abu jahlin ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ku ñëw gannaawam te weddi yonent bi rek xamal ne leer googu yonent bi doon fula doon reflété dalul ci sa xol yal nañu yàlla def ay dëgg-dëgg jullit mbokk yi te soppaloo ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu jëf yi ñuy jëfal suñu borom yàlla buñ ci gis suñu bopp ndax jaam du gis boppam yàlla bu ñu gis suñu bopp ci li ñuy defal yàlla wa axiru daawaana an alhamdulillahi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu